Euh, dafa am ay société internationale yoo xam te ne Olympique yi pour ñuy manipuler euh, wala ñuy manipuler les Sénégalais euh, ci situation Ousmane Sonko bi à l'avant leur cerveau quoi pour ñu bañ a xam exactement ce qui passe réellement ci ci mbirum Sonko parce que dégg si benn interview nga wax ko. kooku même informaticien boo jël déjà mën na la ko defal xam nga léegi TikTok bi ak comment ça YouTube bi tey bu nee nga jël sama photo nee nee naa ne. ne wax naa leneen lu grave. Mhm. Mhm. état bi tamit ni muy arrêté nit ñi sax léegi mën na gisoo léegi dañuy jël nit ki mhm. arrêté ko ba fa lay jël ay joom teg ko ah defe naa moo daloon bi passé El Malick El Malick oui benn audio la ñu génne boo xam ne du moom manipuler les gens comme ça jël photo jël photo boole ka ay paroles yu ñu rox parole muy wax lu bon et pourtant les les paroles sont sont on peut dire c'est identique hein même pas besoin d'être euh, un spécialiste maintenant il y a un groupe israélien qui est spécialisé dans les élections ah boo xam ne dañ leen di fay ñu defal ay ay système yoo xam ne dañuy manipuler opinion bi. Hmm? Hmm. Hmm. léegi ci affaire euh, Adji Sarr bi ak Sonko euh, dégg nga ci lu nekk. micro bi ah dégg nañ ci lu nekk. Uh-huh. donc ça veut dire que am na ñoo xam ne pour des intérêts personnels dem nañu wax lu nekkul dëgg la preuve bi ñu demee tribunal viol amu fa. oui oui de mort amu fa menace de amu fa. après la ñuy génn benn. corruption à la à la jeunesse corruption mosul am Sénégal. ah bon corruption de jeunesse. yow yow nee nga si yow dama Fuuta man sama <laughs> sama premier sama premier waxaale dañu ma takkaloon sagar bi ma nekkee xale lañu ma takkal sagar ci benn xale. à quel âge. <laughs> Uh-huh. may jàngi France bi ma yónnee famille bi lu ñu lekk ndeke ñu ne ñu ne maa maa ko yónnee ndaw si. elle n'avait pas 18 ans d'accord donc Fuuta moom ça se fait couramment. sama mbokku tukulóor yi nekk français naabe yi ñu ngi leen di régal ay xale yu ndaw yoo xam ne eh, amaguñu dara donc loolu loolu taxawul quoi de boo demee Tambacounda si sunu mbokk yooyu eh, dañuy marié xale yi à 12 ans moo tax règle ñu jëlee en France mënu c'est pas applicable au ko appliqué woon Sénégal presque ñëppay dem am na benn ministre sax boo xam ne nee na bi yi ko yaayam di di jur 15 ans la amoon ministre la République. ci ci ci gouvernement bi. ah <laughs> ministre de la république waaw ma léegi loolu la avant moom moo waxal boppam que bi mu ko yaayam di am quinze ans la amoon kooku ban âge lañ ko marié elle était majeure. non non ah, kooku de corruption de la jeunesse. bu hmm? ñu ko jëloon ci loi bi ñu appliqué kii corruption de la jeunesse lay nekk. Hmm. mais suñu réalité ñoo mel noonu. ñun hmm. tukulóor la ñuy marié à moins de 12 ans jëm 15 ans. Ah, boo demee si sa saraxole yi walla <laughs> wala waa Tamba yëpp dañuy marié à moins de 15 boo demoon France boo ko defoon France ñu ne la pédophilie la. Mhm. donc am na yoo xam ne c'est pas applicable au Sénégal te loi boobu mosuñ ko appliquer mosuñ ko condamner kenn au Sénégal. Hmm? Mhm. donc c'est presque une loi spéciale qu'on am amenée pour Sonko. Sonko nag li ñuy wër wax naa ne ko depuis boobu euh, mooy comme ni ñu def euh, xawma euh, Khalifa Sall. oui pour tere ko. mu bokk mu bokk inéligibilité la ñuy wër parce qu'il est populaire. def nañu ay sondage tey bu ñu éliroon tey deuxième tour du am. mais mais mais mais docteur président Sall dafa anesthésier le les Sénégalais <laughs> euh, pour ñu pour euh, pour seulement gëlëmal leen quoi. benn image laa leen jox. ñun en anesthésie en médecine. Ah. bu ñu la waree opérer tey. Ah. ne la kaay hospitalisé tey dañ lay opérer suba. guddi googu da nga nelaw. déedéet. <laughs> say mbokk dañu nelaw. am na ñu siy dem ci ay sëriñ sax ñu si ay garab ñu indi di la ko jox pour que bu buñ lay opéré xaw ma la pour ñaanal la te kooku dañ koy tere normalement ku ñuy ku ñuy opéré suba waroo jël benn garab mais en Afrique malheureusement daf ñuy dal sax ay waroo jël benn garab par la par la bouche. à hmm? hmm. tendeur mais gis Sénégal yi ngay pare opéré nit yaayam dama jëlal ko benn benn saafara fa lay andi mu naan ko ngay opéré ndox bi génn yàq opération bi. Hmm. mais avant ça nag am na 48 heures avant yoo xam ne comprimé lañ lay jox pour dalal sa xel. makki ni mu def ba dalal suñu xel. waaw ba mën a jàpp Sonko. waaw première prémédication bi. bi mu ne du nekk troisième du def troisième mandat. waa Sénégal yëpp conta waa monde entier kontaan ñu ne ah suñu président bi de il est raisonnable. xam loolu presque euh, pré anesthésie la <laughs> prémédication ñu teg ci beneen mu ne kër Sonko léegi baareetuñ ko. na fa gendarme ah. jóge ñibbi seen kër. pendant cinquante cinq jours levée du blocus. voilà un seul coup mooy nañ ko dindi xelu Sénégal yi gën a dal xam nga loolu ñu doon wax prémédication bu ñuy pare opéré. <laughs> dalal xel quoi. waaw ah, dalal xel balaa xel mooy prémédication. prémédication mooy ba dalal xelu nit. oui voilà vendredi bi ci tegu mu door anesthésie bi anesthésie moo lay nelawloo définitivement ñu mën a dagg sa loxo. portable bi non euh, mooy euh, mooy waaw portable. waaw portable bi parce que loolu mooy élément déclencheur selon selon le procureur. waaw opération bi ñu dagg sa loxo fekk population bi du ko yëg. Hmm, foofu la ñuy wax anesthésie générale anesthésie générale la ñu dóor bés boobu ñu naa du dara problème de portable la peut-être koy delloo amul dara mais portable boobu yëg bi ay terrorisme yëg bi ay xawma attentat yëg bi ay fu kenn xamul boobu nag Paris la ñu defoon. Hmm. parce que gouvernement bi demoon nañu beneen Sonko daal jaratul ñu di ko laal puisque chaque fois bu ñu ko laalee dañuy am problème. Hmm? Hmm. mooy gatsa gatsa bi mu waxoon mais gatsa ba gatsa bi du moom moo koy def boo ko téyee nga tëj ko président. mais moom moo ko wax. ah mais Ngor Ngor Ngor gatsa gatsa amu fa est-ce que événement Ngor bi yëg ngeen ko. ay xale ngor ñu ñu jël seen terrain wu ngor ñu ne lañ fay def gendarmerie xale ngor yi ne noonu foofu école lañ fa mujj def. Sonko manifestation yi yëgu leen soo doonu ci def Sonko wax na ci wax na ci wala. non non waxu ci ko teree wax ci sax maire moo ne ko bu mu ci wax boobu gatsa gatsa la gatsa gatsa mooy fippu mooy œil pour dent kii. Mm-hmm. bi ñu tegee baat euh, tànk ci baatu benn américain bu mu dee loolu du gatsa gatsa. américain moom yaa ngi koy fàttali. Mhm. mooy George noir la ko noir bi George Floyd. le George Floyd George Floyd. Mhm. boobu ëppul gatsa gatsa boobu Sonko moo ko def. mais boobu nekkul nekkul ci réew mi boobu c'est États-Unis États-Unis la. waaw mais pour te dire que réaction bu état di def loo xam ne du yoon dans le monde entier la réaction de la population mooy la par la violence. bi ñu rey xale xale xale bi fii euh, France. waaw bi ko policier bi tiré ba. loolu na loolu dëkk bu mel. waaw ah, y avait population bi xale yi génn nañ mooy euh, taal yëpp. mel mel comme nii quoi fi mu nu mel fii Sénégal comme Sénégal nu mel fii gars yi di. bële moo gën a grave moo fay mon ami. ok France te France dañuy am ci policier li ñu am ci kii. Mhm. est benn policier jël na bal tiré ko ci benn euh, manifestant. Mhm. Mhm. fii dañuy dañ jënd seen i bal 39 milliards. ci projet bi ñu doon wax ne c'est pour les les eaux et 39 milliards xam nga 49 milliards armes lañ jënd déggaat naa sax doolu nañ ci ba 300 milliards te loolu ba léegi taxawul parce que ñoom seen projet mooy gendarme bu taxaw yor pistolet. yor yor arme. kooku sax coow am na ci dégg naa entre Fall ak gouvernement ak président xam général Fall la ñu joxoon loolu. oui. dafa dem ba ñoom ñu gis ne que bali matul ñu jël général Fall sax boole ko beneen général Faye léegi bu koy bu koy foofu am na lu fa xew. Mhm. nañu projet bi ñu waxoon Fall na def pexe ba gendarme gendarme bu taxaw yor fetal peut-être que démb sax ñu ngi dégg ci. trois gendarme tax kenn moo ci yor fetal donc def naa sax ñu ngi dégg a travers Pape Alé Niang ci ci benn interview mu def benn nervi moom mi ngi wax naan ni ko nan la ko bu boole ko ci affaire bi il paraît que chaque mois on lui paye euh, non chaque jour quarante mille. non est-ce que yéenay yi am na yoo xam ne man du ma ko war laaj. Mm-hmm. seen journaliste Alé Niang boobu nu muy defee xam loolu mm-hmm. nervi yooyu tamit am nañu ci waxoon ay